jaar jaari Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul ci foofu yi nga xam ne fi lañ toll muy génn gi muy génn Mbàkke Bari wut si fi nga xam ne mooy Ndar ngir woo googu ko gouverneur général woo te yàlla dogal woo gi it am lu mu lamb lu bari ndax Sëriñ Tuubaa moo sàkkoo dem tubaab bi it jàpp ne moom moo ko génnee fi mu nekk jàpp ko yóbbu ñaar yooyu nag day laaj ak leeral gu leer naññi ndax sëñ Tuubaa xam ngeen ne yonent bi nee na ko woon jamono boo xam ne woo nañ la nga dem ci woote ba te gisuloo ma rek booba la la saytaane di jekk te saytaane amul ci sëriñ Tuubaa yoon waaye yàlla dogal nag jamono jooju yi ñu ko bindee ay leetar yu bari te ma Abdoulou Fara Biram loo di tardeel leetar yi ngir bëgg luñ ko gën a mën a gaaw a jàppe kon noonee mu def ba bindub leetar gouverneur général di ko accuser wala di ko bind di dal ci kawam di ci adressé Samba Lawbe ak Cheikhul Khadim loola lépp loolu la ci jublu woon ba loola amee tamit gis nga cortège bañ ko boole loon muy wàllu sécurité lu mel ne espace yu bari ak police gendarmerie ñu war a dem jàppi ko ba ñëw jeewal ci boobee maam Thierno ñëwee ci gouverneur général ba mu ne danaa leen télégramme fu ma leen sama télégramme fekk ñu man faa toog ba ëllëg ci deux heures bu ñëwul ñu mën ko faa fekk jàpp ko yooyu yëpp xam na ne ay ndëgg sarax la woon waaye Sëriñ Tuubaa moom wa lastu arju wala axsa siwa maliki yi li annahu jalla yoxni na yun jiini boobu ma waxoon da cee dëltuwul gannaaw amul lu muy ragal te bu amee ku muy ragal wala ku muy yaakaar yàlla rek lay doon ndax mooy ki koy wërsëgal ak ki koy jox li muy am loole ci la sukkandiku ba boo bii mu war a génne war a dem nag wuy ji muy fukki fan ak juróom-ñett waaye la ko jiitu it woowoon na mbooloo mépp ban dajee ci benn barab mbooloo ma sakkan lool Cheikh Ibra Fall ak ñoom ñëpp fekk na ci ñu yeewi ko woon sax war na leen ñu ñëw daje si ca ndaje a sëñ dem na Abdourahman loo magaj daan leen di wax nag ne dama leen a bëgg a laaj ci woo gii ma tubaab bi woo lan moo ci seen xalaat nee am ca ñu ne ko a ah, nun de li ci suñ xalaat mooy xanaa jéem a jàkkaarloog ñoom rek jeexaat ak ñoom ba fa suñu bakkan yam ñu xam ne foofu la ko yàlla dogal waaye ñun mënunoo mënunoo tàggoog yow benn xaaj ba loolu lañ ko wax beneen xaaj ba ca des ne ko ah waaw tee ngaa maslaa moom rek ndax nun gis nañ ne boo maslaa ak moom mën na la fee bàyyi ah loola it wax nañ ne ñenn ña moom la ñu wax muy xaaju ñaareel ba xaaju ñetteel ba it wax nañ ne dañ na ko doxal sëñ Tuubaa nee na yéene ma aw ay waaye gis nañ ne laakaakal gi may laakaakal ak jege gin ma jege jàpp nañ ne su ma laakaakalee mbooloo moom yi tubaab bi mën naa ñëw jël ma yóbbu te dana leen ca boole moo tax ñu ne ma doxal waaye kam laaj muy sëñ Dame Abdourahmane Lo dana ko yow ñëpp wax nañ te waxuloo lan mooy sa xalaat ci lii mu ne ko Abdourahmane de ku naan yàlla nee na yónanti nee na Abdourahmane tuuti na ci ñëw di la digal kon nag yaa ma gën a xam ci lu la suñ borom sant. Abdourahman lim seq ak yow mooy ngaw digal ko mu def waaye sequt ak yow di la jox benn ndigal Serigne tubaa nee na nag ca loolee nag laa saware nag am ci encouragé te nag daal di fas yéene jóg waaye booba xamoon na moom li ko tax a jóg ndax jaayante woon na contrat ba waaye lépp lu muy def rek da koo bëgga a waxtaanee ngir bëgg kenn ku nekk mën caa joxe sa xalaat Serigne Touba Serigne Fallou Mbacké nee na dem ngi am siiw la ko defoon ba amu ci woon seen sago te loolu moom tubaab yi gisuñu ko woon. loolu nag tax keroog bi nga xamee ne tàggoo naag ñaam ci loolu ba wax leen ne leen nag léegi jël naa ceerno mi def ko seen jëwlin lépp loo xam ne liggéey ngeen ko ci lu ngeen di joxe ci ay addiya na ngeen ko teg ci loxoom bii bu ngeen ko ci tegee mel ne ak sinaa ci moom daal di jël ak njabootam dénk leen dénk ko mooy ko mel ne ñi nga xam ne ak njabootam la Cheikh Moustapha ak Cheikh du Fadal ak ñi nga xam ne moo leen war a jàngal ak këru Touba gi mu war a waggar ak ñi nga xam ne it ñoy ñew di setti señ bi maam tierno mo doon njit li nga xamne mom la tegoon ci bopp boobu gannaaw bi nga xamé ne nak loolu amna na Serigne Touba genn bisub samedi fukki fan ak juroom ñet fekk na cortège ba nga xamne ñom ñokoy wara japp ci ñom ñanga campi fa nga xamne moy jéwal tok fa di xaar sawar lool nak, waaye bi señ bi doxé ba aksi ci fofu muy jéwal sëñ bi lu muy jëfal lu ne rek ndigalul suñ borom la koy jëfe tax na bi mu ñëwee mu xamal leen ne daal moom mënta dem tey day fanaan ndax ndigalal boromam loolu laa ci jot waaye yàlla dogal ñoom it tamit ñu daal di ànd ak moom ca loola ci koo xam ne si dañ la laa convoqué te boo xoolee convocation jamono ji kuñ convoqué duñ la may looy sañ ci sa bopp waaye moom dafa ne duma dem ñu daal di koy fekk si ca loola nee na mbooloo ma it am na ca koo xam ne ma nga ànd ak ñoom tubaab yi jàpp na ñoom lañ àndal te kooka it yërmande dong nga ko taxoon mu ànd ci ñoom ak ñeewante koo xam ne si ñeewante na ma ca loola waaye ne na foofa it laa dajeeg waa ahlu badrin ya nga xam ne ñoo àndoon nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee mu naan ayyesa minna allahu inda jeewalu iblisa isnaaday taxu yaa wali loolu yi gis nga ne ayyesa boo ko jeexee da ngay gis ne lool yi sëñ Tuubaa wax mi ngi ca biir waaye gis nga ba mu fanaanee ba ca suba sa it ca fa nga xamee ne mooy jeewal gannaaw tàkkusaan la fa jóge fa la fanaan ba ci gannaaw tàkkusaan la fa jóge yendu si fii nga xamante ne sii mooy kokki bi mu ñëwee kokki it bisub dimanche la yemoo fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru safar mi ngi ñëw foofee nag foo la nekk toog fa ba jullee fa timis jullee fa gee la fa door a jóge nag wut fi nga xamee ne mooy Louga foofee nag lañ ko war a dugal ci saxaar gi andi ko fi nga xam ne mooy Ndar waaye foofu it fekkoon na fa commandant bu soxor boo xam ne ni bañ sëñ bi ëpp na ak àggoon na ci ba wax ne suñu jëllalewul sëñ bi génnee ku réew mi moom dafay tekki ndombal tànkam te gorob gouverneur général la bi nekk Ndar waaye diir boobu nga xam ne nag ñu ngi waaj ak si Louga ci diggante boobu te sëñ bi wasa waroon fas wu ñuy wu tudd xaw nu laay nga xam ne fas wa dox ba dafa gaawoon ba ñi ko doon jàpp si fas wa da doon raw ba ñooñu ñoo doon taamu di wax sëñ bi naan ko defal sa fas wi ndànk ndax gis nañ ne nun dox bi ngay dox moo gën a gaaw nun mënatunoo ànd ak yow am na ca ko wax ñëw ba fi moom ne ko ah sëñ bi mbaa waajal nga sa bopp yaa ngi waaja ak si Louga de ci tubaab bi te moom ab noon la bu doy war waaye sëñ bi mel na lu ko tànqablu ba mu ko ko waxaatee nag la ko ne ah lépp loo xam ne day yàlla nar na ko ci yow yàlla nar na ko ci yow te yàlla dogalit mu dëppoog la nga xam ne moom la noon ya nar ci yow kenn ko mën a dox sa digganteeg loola loola tee koo am du am képp koo xam ne nag yàlla narul ci yow ja loo xam ne ni aw ay la te nar ci yow jàmmi kese lu ko noon yi yëkkati yëkkati jéem koo jëme ci sa kawit kenn koo xam ne si mën nga koo tax a am du am koo it am xelam daal di dal lool ca loolee ko sëñ bi wax waaye gis nga ne fas wi bi mu gënee gaaw ñi nga xamante ne si ñoo ko doon wax naan ko defal ndànk sa fas wi sëñ ba daf leen a tontu ne leen naka la leen seen jiit di woowee yónni leen ngeen di yeexamtalu ba ma leen di raw kon xam nañ ne fa mu jëm moom moo ko sàkkuta ragalu fa kon xam na la muy sóobu ci ndax amul benn jeexital bu jeexital ci ne jeexitalu prisonnier la foofa it wax na ne asiru mahal abrari ayna asiru wa sanna al ila anni hunaka asiru dox bii may dox ànd ak ñi nga xam ne ñooy waa ahlu badar ñi ma àndal ñoom jàpp nañ ne ñoom ñoom may seenu prisonnier waaye man seereel naa leen ne waa ahlu badarin laa àndal loola moo taxoon dox ba gaaw loola moo tax ñi jàpp ne ñoom ab prisonnier lañ jàpp fekk leral nako na wa ne waa ahlu badr la andal ndax ma nga dajeeg ñom jéwal bi mu agsee it fi nga xam moy luga lañ ko daal di teg ci saxaar ci ko fi nga xamantene ci moy ndar bi mu ñëwé ndarit Ahmed Khouraysi lañ ko yobbu fofu ben touché ñala won bo xam képp ku tubab yi mas a jàpp lañ koy jox mo koy servir li muy lekk ndax restaurant la fa yoroon loole moom it lañ tegoon ci sëñ bi nga xam ne kuñ ko jox bu weer wi dee lam consommé lépp da koy bind ci benn not jox ko tubaab bi mu jox ko xaalisam ñu jox ko sëñ bi waaye sëñ bi def na fa lu toll ci ñeent fukki fan yoo xam ne fu ko neex lay dem ci biir ndar ku ko neexit lay recevoir ndax ñeme ko woon a téye téye prisonnier maanaam di ko xañ ak ak yàlla fam kër Ahmad Khoureychi moomee mu nekkoon nag yàgg na ba boobu nga xam ne audience bi jot na ñu war ko boole quatre-vingt-trois marabu yooyu nga xam ne ni lañu wax ne ni lañ leen listé woon kenn ku nekk ñu listé sa ba moom mu nekk point quatre waaye foofu tamit am na ak leeral ndax ñu bari ñu ngi naan numéro quatre la woon moom moo sàkku nekk numéro quatre yi ñi nga xam ne ñooy diwaan ñu di ko di ko wax sëñ bi musul am bëgg-bëgg ci boppam ci dara loo xam ne si moom moo koy sàkkul boppam di ko di ko di ko di bëgg koo doon lu muy am ci lu muy def rek yónnente bi moo ko koy wax dicté ko ko digal ko ko mu def ko sëñ bi mësta am bëgg-bëgg ci yooyu ci dara lu dul bëgg yónnente bi sallallahu taala alayhi wa sallam bi yàlla dogalee loolu amit am na ci ñuy wax naan dafa gëdd tubaab bi tubaab bi def nangam ak wax yu bari yoo xam ne daal dafa méngoo wut ak doxinu sëñ bi ak li sëñ bi bind bi yalla dogalee lolu amit audience bobu du même jour lañ ko woo moom ñooñu bokkul won ak ñoom audience donte numéro 4 la bi yalla dogalee it lolu am la don sabab bi moy dañ ne suñu ko wo pour bëgg tan ki nga xam mo waral ciow li am ci biir séparation bobu ci lañ leen man di convoquer par kenn am luñ leen signaloo buñ ko nanguwute ku ko nanguwute signé nak ñoo xam yaay ennemi France yaay anti bi France loolu moo doon sababu convocation bi te seen note bañ bind lañ ko bind loola Serigne Touba da ko signé moo yéen Serigne si seen coow dafa bari seen yëngu bari na ñu bëgg ngeen dakkal ko képp koo xam ne nag yàlla digal na la dara ci réew mii nga xam ne ñun ñoo ko colonisé ñun tubaab bi buñ la teree loola da koy bàyyi donte yàlla la ko digal képp ku yàlla tere yépp mbir nun buñ la ko digalee da koy def loolee moo doon solos leetar ba. léegi nag ñu ne képp ku ko nangoo signé nag dañ lay bàyyi nga dellu ci sa kër duñ yam ci bàyyi la waaye dañuy yëkkatam neexal jox la te loola mooy yàlla amul yonent bi amul yu mel noonu rek xeet yu mel noonu mooy loolu rek léegi nag bañ defee noonu leetar bi daa di woote bañ wootee quatre-vingt-trois ñoom ñoo ñëw ñoo njëkk ñëw sëriñ bi ñëwul ci audience booba dañ koo bàyyi foofee ñu ko téye ba gis ne que njëkk kañ njëkk a wax ne ko signal ba mu xoolee gis ne lii diinam nanguwu ko la ne doo signé ñu rey ka ca topp ñu ne numéro deux ñu woo ko ne ko signal mu ne doo signé ñu rey ñetteel ba ñëw ñu ne ko mu ne doo ñu rey waaye nag ban jëlee paaka ba nag taqal ko deret teg ko ca taabal ja ka nga xam ne moo topp ca numéro trois ca audience bu njëkk ba tiit bam tité gis ni li bakanam xajna ci la dal di tiit daal di signé lola ñu jël ab cadeau jox ko ña ca des ñu topo ko noonu numéro 5 numéro 6 numéro 7 ba lim ba jeex ñëpp nangoo signé ña nangoo ta signé mom boom nañ leen ba denc nañ leen ña nangoo ta signé nak ña nangoo signé nak jox nañ leen seen seeni cadeau ta seeni turangi fi ñu bàyyi leen la tax serigne touba nek numéro 4 moy la ñett ña ñañ ray doon bañ lola la doon bañ moo tax moom ci ëllëg sa lañ ko woo moo ko ñuy wax duut sekk bul mex daat ñii naan Cheikh Ibra Fall nga fa woon ak moo tëb def lii moo def lii loolu lépp dara taxawu ci nit ku ñuul moo duut sekk bul mex daat ñoo fa bokk nekk fajaas bi yëpp gannaaw deux heures la lañ ko convoqué deux heures deux heures lañ def ci convocation ba gannaaw jullit tisbaar deux heures lañ def ca fajaas ba bi mu dikkee tamit darul di dal rek dugg ci biir daal di commencé continuer lañ ko doon doyee dafa ñëw rek daal di wéetal boromam julli fa ñaari rakkaa yu diire quarante cinq minutes quarante cinq minutes bi mu ko jullee ba pare wax interprétation boobu wax ko ne ko wax leen ma lu ngeen may doyee mu daal di wax tubaab bi ne ko nee na ngeen la wax ko lu ngeen koy doyee ñu laa ne leen ñu ne ko nag ñu lay doyee bala ñu la koy wax da ngay dindi sa kaala gii nga teg sa bopp bi ndax fii mooy fi nga xam ne fi la ñuy attee moy fi gëna mag ci sénégal kon yow ñing la woo waxaguñ la liñ lay doye nga ñëw di def sa geste yi di julli ak def yo xam nek ni luddul sa dul la fekk na ki ka xamné mo warona atté a sëñ bi mom dafa daw daa di jël ku ñu wax général darmo darmo daa di fay tek ne ko yow ya ko wara atté ko ké nak mo wax sëñ bi lolé ne ko fi buñ la fi wo ba nga ñëw ngay def sa geste yi te fi du bu julli bo wara julli mu ne ko lii ma def yalla la ko digal digal mako man kon dama koy def yow nak da nga bañ fépp fu ma def bala may wax kenn dama def lima yalla sante sant la ko sëñ wax ne ko gawal wax ma li ngeen may doye wala ma ñew dem sama yoon ñu daal di koy taxawal fofé nak ben cour bo xamné dañ jé def condamnation à mort daal di bind euh, kayit wo nga xamné mom lañ doon lo ñu ñu dembu ñu jox ko ko señ bi ne bala koy signé nañ ko jox xalima gu bind fenn ñu jox ko ko mu daal di ciy bind qul huwa allahu ahadun allahu samadu lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufan ahad waaw man de du ma may sama borom te yàlla kenn la jurul kenn kenn juru ko waaw te nekkul nawlaf kenn nit te gis na ne it rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom la bëgg a liggéey la amul lenn lu mën a teg ci kanamam lu mu ragal ñu daan ne nag kon kii la daloon yonent bi moo koy dal ndax yonente bi ba ko waa Màkka sonalee ñii ne nañ ko rey ñii dem na nañ ko tëj ñii dem na nañ ko génnee ba noonee mu gàddaayee dem mu madinatul munawara noonu it lañ def sëñ Tuubaa ndax dañoo jëkk a wax ne nuñ koy def kenn koo tëj ci kaso bi ñu ne bu buñ ko tëjee folañceer yi ci boppam ci diggante Saalum ak Bawal ak dara kenn duutu ko mën a gëndale nit ñi dañuy ñëw di ko fi fekk ñu ne kon teen koo rey ñu ne bu buñ ko reyee réew mépp deret lay moo mujj doon ñu wax nañ ne aw yaxtul aw yoxru juuka aw yoxru juuka kon nañ ko mujj génnee nañ ko mujj génne génne googee nag ca lañ xalaate fu ne xalaat nañ fa wax ne nañ ko yóbbu barab sàngam fu ñu ne nañ ko fa yóbbu rek ñu xalaat ne foofa ñaari jullit ñetti jullit a nga mën nañ ko faa fekk bu yàggee foofa ñooñu nekk ay jullit bañ xalaat réew mi gën a sauvage muy ñu ne nañ ko yóbbu gabang ndax foofa suuf sa baaxul jaww ja baaxul réew suuf sa daa amee fel daa amee nangam nangam te ab jullit nekkul ñu xalaat ne nañ ko yóbbu gabang loola bañ ko defee laata ñu koy def dañ ne nañ ko yóbbu fi nga xam ne mooy char des déchets char barab la woon boo xam ne ak gaynde lañu jëloon yóbbu ko fa xiifal ko ay fan gis ne gaynde gu xiif moom waxuma la nit waaye takkandeeram dong bu ko gisee yow mal xiyaam lay fanaan yi ñu daal di ko fay dugal néewuñu sëñ bi it dañ lay yóbbu foofii gaynde gi nekk loola it bañ ko defee bañ yóbbu ko char des déchets pour bëggoon bu fa bakkanam yamee ah alxayrun ci ñoom bu fa bakkanam yëmul it ñu daal di defaat meneen pexe muñ ko mën a sàkkal foofa it wax nañ ne bañ ko fa yóbboo ba toog ab diir lañ joxe ndigal ne nañ dem ubbi fi nga xamante ne sii mooy barab bi xool ba xam gaynde ga jëfandikoo na ko waaye nag bi nga xamee ne dem nañ ba nga xam ne ubbi nañ ko la gaynde gi ne bërët fekk sëñ bi xamul na gaynde gi sëriñ bi teg ko loxo gaynde gi toog am nañu naan nag daa génn fàdd ci ñetti tubaab ak ñeenti tubaab loolu moom suñu xam-xam ëggu waaye li wértu wëraal sëñ bi teg na ko loxo mu toog ñu daal di jaaxle nag ndax gis nañ ne gaynde gu xiif kat soo ko dugalee fi barab te gis nañ na yëpp sëñ bi moom jotewut ak moom dara kon nag musiba tàmbali na am te loolu mooy wax wa aysuma taxaf ila hakil ahad li habka min xawfika kullal ahad nee na boo ragalee yàlla te ragal gi di dëgg nee na lu yàlla bind lu nekk daf lay mujj ragal loola moo tax gaynde ga jëfandikoo sëñ bi ñu xalaat nag ne kon nag léegi lii solution bi mooy nañ ko jéem a génnee réew mi bisub alxamis fukki fan ak juróom ñeent ciw gàmmu la jóge ndar wut si ndakaaru muy fukki fan ak juróom ñeent bisub gaaw yëpp nag la la jóge ndakaaru wuti gabon waaye fii mu ngi fi jóge bu bisub alxamis fukki fan ak juróom-ñeent ci gamo lañ ko daal di jëlee foofee de sardee dese teg ko ci ak saxaar boo xam ne saxaar ge wagoo wañ ko dugal ay fas lañ cay def ak yu kenn xamul mu woor koor googee mu koor nag bañ ko indee ndakaaru ba wàccee ko ba dikk ba dog koor ga julli timis ba dog koor ga julli timis ba defee ne nag tooga a des lañ ko ak ñaari policier wala ñaari gendarmerie mana, wala ñaari jaraafi ñu digël leen ñu yóbbu ko ci kaso cellule boobu nga xam ne kaso bu garaaw la woon muy su bopp xat gi xataay gi ëpp na dayo ak tooke dañ ca def ndax mesure sëñ bi lañ jël ci kaw longor ak épicerie bi muy mbagg bi moom lañ misiré ci kaso boobu def fa ay rabbu ak paaka ak xotti ak tooke ju bon boole ci ak def fa nag chimique boo xam ne ku ko noyyi faatu yooyu yëpp ñu def ko ca biir néeg bi sëñ bi noppee ba julli timis nag lañ ko ne aywa bisimilah daal di ñëw seq ko ñu jàpp ko jëmee moom ci kaso boobu yi mu nga xam ne moom la ñu wax kaso cellule bi mu agsee it ay dàlli karbat yi mu sol dañ ne ko summil dàll yi mu daal di summi dàll yi fi muy teg tànkam ay ràbb la fi muy wéeru ay ràbb la fi ko tiim ay ràbb la bunt bi koy tëj ay ràbb la bim ne tegg tankam ci bir la paaka ba sar ak rabb ga ba deret gi de satatati di waye tanku ci amuñ ba fekk ci na morom ji mu daal di ñu daal di tëj néeg ba tok ab dir wax na nañ ko dem seeti fofu wax nañ ne suñu borom yabal na fa wacce na fa dara wala wax na ak mom ci nam mëna wax ak mom wax ko ne ko bu fekkante ne da nga ne won bis bo ci loxoy yi bi du yàq dara ak lépp luñ la mën a teg ci ab nattoog coono na nga daan julleeg na nga daan jàng alxuraan du ca wàññil dara su fekkee loolee nga doon wax nag ma nga ca yow ba fi mu ne jàngal nu alxuraan ma dégg mu daa di daa jàng fatiha daa jàng baqara daa jàng ali imran jàng maida ci njàngin wu teey jàngin wu sedd ba ca foofee nag fa la ko yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam fekk foofee tamit la ko soxna jaara bu sa fekk daan na ko gisagoo dara ndax ba nga ganee jamono kat yaa wax ma dégg ci sama nopp nga wax ne lépp fuñ la luñ la mën di def ak lu ñu la mën a euh, wax da nga jaamu yàlla jaamu gu ko kenn mës ta jaamu waaye tamit da nga liggéeyal yonent bi liggéey bu ko kenn mës ta liggéeyal kon nag comme yaa ngi ci xat-xat yi nag na nga xam ne lii ab tàmbali la waaye gisagoo dara fofé nak la wax ca jafe-jafe yako dalon ne isa sakartu salika al mabita wa salika al lamina was sabuta tarat ila al jihad bil armaahi ba affaire ba ba bayit wa jeex ni wax nan suma ma sama guddik dakar goge duma bëgg def lu jóg rek jamar noonu non way suma ko defé rek rasulullah sallallahu alayhi wasallam sallam ma ma feeñu woon ca sardé dessin biñ dugaloon gaynde ga nga xamne bañ koy dugal nee li tax yëguma ne lu may lora ngi ci biir lëng gëma yónent bi lëngoon ñu ànd loolaa dañ dindi sama njàqare ci lépp waaye nee na keroog it ci néeg boobee la ma yónent bi feeñu gën koo ñaaxaat xamal ko ne ko jàmm rek ngay am moo tax mujjul jàkkaarloog noonu yi ba naroon a fay waaye nee na naroon na lu mel noonu loole tamit bi jamono doxee ba sëñ Tuubaa yey leen ci lañ ko defal guy Masaalikul Jinaan gee nga xam ne jumaa jañ ko fa defal jenn jumaa ju dul joj Tuubaa du Madinatul Munawwar ëppoo ko financement te loolu Sëriñ Tuubaa mooy ak payam ñu daal di koy wax nag nekkoon nañ ko jéem a yóbbu fi nga xam ne mooy Gabon moom it bisub gaawu la fa jóge wuti Gabon bi yàlla dogale it mu yam loolu yamoog le 21 septembre boobu bii nga xam ne ci lañ ko tege ci 1895 bañ ko dugalee ca bata ba bu waree départ gaawu ajjuma lañ ko ca dugal ci guddi mu fanaan ca bato foofee wax na ne kenn ku nekk ñëw nga ci moom ñaan ko ne ko comme gouverneur général bi nga xam ne moo fi nekkoon léegi changé nañ ko indi fi beneen te bii xamagul ayu sénégalais yi seenu ñaawteef dañoo bëgg nga waxtaan ak moom su ko defee soo su ko defee mu man la fee bàyyi nga mën fee wiyal sab liggéey ba ko jëmm ja sonalee nag ba mu naroon bindu bindub leetar la yàlla am lu mu wàccee ko at tarfo at tarfo ajatu ko ila maxluuxi mislika ndax da nga am lenn looy tawat looy bëgg loo xam si da nga koy yaakaar ci keneen ku dul yàlla nee na ma tiit njàqare dab ma ma yedd sama bopp daal di bàyyi loola mu wax wax ma ne ko bindatuma kenn cheikh bi faal fekk na ko fa di wax naan yéen a ngi yóbbu sëñ tubaa te tëñu leen defu leen dara njaboot gi ñëpp seeni xol lëndëm seeni xol naqari waaye gëm nga des ca ñoom ba gaawu boobu jot nga xam ne ci lañ ko yóbboo yam la 21 septembre boobu yi gal ga ma nga fa déparé gannaaw tisbaar julli takusan moko jëk dab ci géej mu bëgg julli ñu bañ ta pokos bañ ko dugaloon dañ ko misiré ci sëñ bi mënu fa tàlli mënu fa def tara mo ak bagage yi ñu bolé ko ndax gal gi daal dafay déxé waxtu takusan moko jëk dab kon ci waxtu takusan wowo ci lañu fas soobu suñu juroom benn waxtaan su ko defee eh, daal di ci jublu ci waajtaayu màggal gi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh